يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp teewlu di teewlu ndax bis bu mag bi ñu jëm ndax bis bi ma jëm nu gàttandi bu baax a baax ci gën cee yeesal nag sunu lépp gën cee dëgëral sunu lépp mu ne bis bu màgg bu rëy mi ngi ci kanam boo xam ne sant rekk ñu ci war cant gi ñu ngi koy tàmbalee ci sant sëriñ bi santale ko santale ko sëriñ bi moom sëriñ bi moom wàccoo nag njaboot gépp njaboot gépp lu mat a def rek def na ko lu mat a def rek def na ko diggante mag njaboot gi lu mat a wax wax na ko diggam ak njaboot gi wàccoo nag ñi mu seqal boromam ñëpp wàccoo yàlla yi ñi mu seqal boromam ñëpp di yàlla muy malaayka yi ak yonent ak kilifa yi topp ci ñoom ak ya ñi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xam ñuy jëfe seen xam-xam ñi mu bokkal boroomam yëpp wàccoon ak ñoom kon nun sunu borom daf noo defal tawfeex ju rëy rëy ndax boole gi nu booleeg moom loolu nag war naa tax sëñ bi bu ñu meloon ni mu mel diggama boroomam la sunu so la soob sunu borom mu def ko ci moom loo xam ne xel mënu koo dab wëlbatikuwaat fabaat léppam delloo ko borom wàccoog ñëpp ña fa borom ne fa borom kon nag war na noo seetaat sunu bopp bu baax ndax tawfeex ju rëy jooju ñu am ak lu ñu ca lot lot lot jéem koo delloo suñu lépp jéem loolu nag loolu nag laaj na jëfe laaj na jëfe laaj na jëfe tàmbalee ko ci leeral xel yi nañ war a sëriñ bi nañ ni ñu war a gisee sëriñ bi sellal xol yi. sellal xol yi. ci nañ war a a àndeeg sëriñ bi. ci nañ war a mën a àndeeg sëriñ bi. yokk yitte yi. yokk yitte yi. ca na ware ca na ware am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. ci wàllu dëkk bi. waaw ci wàllu dëkk bi. ñi am tawféex ak dëkk ak sëriñ bi. ak ñi am tawféex ak yaakaar sëriñ bi. ak ñi am tawféex yaakaar sëriñ bi. di fi ñëw di fi ñëw. loolu nag ñaar rek ku sëq loolu nag ñaar rek ku sëq ci wàllu doxinu adduna. wàllu doxinu adduna. ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. ñi ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. war ñoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. wëlbatiku it nekkal ko. wëlbatiku it nekkal ko. luñ ca néew néew néew doole. luñ ca néew néew doole. ñu def ci seen lépp ñu def ci seen lépp. nekkal sëriñ bi ni mu ko ni li taxoon mu ñëw fii. nekkal sëriñ bi ci li taxoon mu ñëw fii. Eh, ñooy ñooy ñi loolu ñooy ñooy ñi fi ñi ñi am tawfeex dëkk dëkk dëkk ak sëriñ bi. loolu ñooy mooy ñi nga xam ne am nañ tawfeex dëkk ak sëriñ bi. muy waa dëkk bi muy waa dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañoo dëkkuñu ci biir dëkk bi. ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi. tey dox yéen dox yéenu àdduna. tey dox dox yéenu àdduna. ñoom it dara warul leen. ñoom it dara warul leen. lu doyloo sëñ bi lu sëñ bi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. ma nee na mas koo wax ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. boobu euh, président Macky Sall mi ngi toog. mu ne ko fii. mu ne ko fii. kenn jëflewuñu jëflewuñu kenn ku dul fii kenn jëflewuñu fii kenn jëflante fii kenn ku dul sëriñ bi. kon ñaar ñooñu rek fi nekk. kon ñaar rek fi nekk. ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo dëkk ci dëkk bi. ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne ñooy wut wut si ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañuy wut si ak wallu ci dëkk bi. loolu nag mën nañu loolu ñëpp nag mooy mën nañu ko delloowaat ci doxinu adduna. loolu lépp nag mën nañu ko delloowaat ci doxinu adduna. kon ñi fi nekk. kon ñi fi ne. dañoo war a doyloo sëñ bi rek war a doyloo sëñ bi rek. waruñoo jéggaani fenn. waruñoo jéggaani fenn dara. Eh, eh, ku fi nekk. ku fi nekk. te góorgóorlu bu baax te bu baax. nekk nekkal fi sëriñ bi. nekkal fi sëriñ bi. ni mu ko bëggee. ni mu ko bëggee. mu waree noonu. mu waree noonu. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. sa tawfeex ji nga am. sa tawfeex ji ngay am. bay tudd sëriñ bi ñu dula tudd. bay tudd sëriñ bi ñu dula tudd. tawfeex joojee. tawfeex joojee. kanam rek lay jëm kanam rek lay jëm. adduna bari nay gàllankoor lool adduna bari nay gàllankoor lool. bari nay fitna lool bari nay fitna lool. bari teq-teq bari nay teq-teq lool. jafe bari nay jafe-jafe lool. lépp ngi ci biir doxinu àdduna. lépp nag mi ngi ci biir doxinu àdduna. la nu ciy musal nag. la nu ciy musal nag. nekkal sëriñ bi rek nekkal sëriñ bi rek. ni mu ko bëggee woon ni mu ko bëggee woon. ñu nekkee ko ni fii ñu nekkee ko fii. nekkal nekkal ko fi. loolu moom rek moo nu ci mën a moo ci mën a musal. loolu rek moo nu ci mën a musal. lu dul lu dul loolu. bu dee ñi fi dëkk. bu dee ñi fi dëkk. war nañoo góorgóorlu bu baax war nañoo bu baax. nekkin wi nekkin wi. bu bu bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. ni ko sëriñ bi bëggee ni ko sëriñ bi bëggee. ak lu kër kër ji bari bari. ak lu kër kër ji bari bari. ñàkk barke rek lay indi ñàkk barke képp lay indi. ñàkk kon lan la ñuy ci loolu. kon la musal ci loolu. ñu jéem a xam sëriñ bi. ñu jéem a xam sëriñ bi. nekkal ko ci lim bëgg. nekkal ko ci lim bëgg. sëñ bi sëñ bi nag amut ak bëgg. benn boromam rek la bëgg. rek la bëgg. ak yonent bi ak yonent ak yonent bi nga xamante ne moom lañ ko digal moo ko jox ndigal. nee na sunu borom nee na bind naa doom aadama ci bindin bu gën a rafet. waaye nag danaa ko dellawaat mu gën a suufe lool ba mel ni noonu musu koo mel. nan jéem a dégg jéem a dégg ay jooju bu baax. loolu moo nekk. ndax loolu moo nekk. dëgg la dëgg la. yërmande yàlla yemut fenn. Eh, yërmande yàlla yemut fenn. mayeeg sëñ bi yemut fenn mayeeg sëñ bi yemut fenn. waaye loolu la yàlla wax. waaye nag loolu la yàlla wax. bu ñu góorgóorloo bu ñu góorgóorloo. dañuy dañuy dolli ku di wéy. dañuy dolli di wéy. mu gën a mate. na mu gën a mate. bu ñu góorgóorluwul bu ñu góorgóorluwul. dañuy dellu gannaaw di dañuy dañuy dellu gannaaw di gën a suufe rek. loolu doomu aadama yëpp ko loolu doomu aadama yëpp ñoo ko bokk. kenn ëpp nu ci wàll. waaye kenn ëpp nu ci wàll nag. ndax sëñ bee tax ndax sëñ bee tax. na mu doxee diggante ak boroomam. na mu doxee diggante ak boroomam. jëflante koog ñi mu seqal boroomam ñëpp. jëflante koog ñi mu seqal ñëpp. ñëpp mu wàcc ñoom. ñëpp mu ñoom. dox leen seen àq yi ba mu mat sëkk. dox leen seen àq ba mu mat sëkk. mu dellu ci fa boroomam. mu dellu fa boroomam. loolu. kon loolu war nañoo xoolaat suñu bopp. waaw kon nag war nañoo xoolaat suñu bopp. Eh, dëkk bi dëkk bi. bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo. nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. defarug biir ak rek la ñuy. defarug biir ak biti rek la ñuy andil. mucc tey ëllëg rek la ñuy andil. buñ ko deful nag buñ ko deful nag. lu ci waay gis. lu ci waay gis. bu mu ko ko bu jiñ kenn. bu ko jiñ kenn. nga xam ne moom moom na xam ne moom mooma. càggante rekk la càggante rek la. kon loolu. kon loolu. kon war nañ ko jéem a di ko di ko di ko di ko di di ko di ko waxtu wu nekk. kon loolu war nañ di ko fàttaliku waxtu wu nekk. di ko jéem a dund. di ko jé di ko jéem a dund. di ca a nekk. di ca jéem a nekk. sunu kem kattan sunu kem kattan. yëngatu boo xam ne nag. yëngatu boo xam ne. ñàkk barke rek moo ciy mujj. ñàkk barke rek ciy mujj. ñàkk tuyaaba rek moo ciy mujj ñàkk tuyaaba rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce ak gàcce. ga gàcce ak gàcce. moom rek ciy mujj. yooyu rek ciy mujj. yal nañu ci yàlla musal yal nañu ci yàlla musal amiin amiin. kon nañu góorgóorlu. kon nañ góorgóorlu. lu baax ak lu bon rek fi nekk. lu baax ak lu bon képp fi nekk. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. ne ci lu baax ne ci lu baax. di wéy ci ndigal. di wéy ci ndigal. suñu kéem kattan. suñu kéem kattan. wattandiku tere wattandiku tere. di bëgg lu baax di bëgg lu baax. te yàlla rek tax te yàlla rek tax. di bañ lu bon di bañ lu bon. te yàlla rekk tax di def lu baax di def lu baax. te yàlla rek tax. loolu mooy sunu sunu warteef. loolu yi mooy sunu warteef. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bi. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bii. tawfeex ji tawfeex ji mën nay dolliku di wéy tawfeex ji day mën nay dolliku di wéy waaye mën nay wàññi ko ba jeex tàkk ñi nga xam ne nag dégg nañ sëriñ bi dégg nañ sëriñ bi ñi nga xam ne dégg nañ sëriñ bi ñàkkul luñ ca xam ñàkkul luñ ca xam ci doy gu sëñ bi doy sëkk doy gu sëñ bi doy sëkk doy nu doy nu tey ak ëllëg doy nu tey ëllëg ñooñu di fi ñëw ñooñu di fi ñëw di fi wut si di fi wut si wàll. fu ñu ko wut fu ñu ko wutee ku dul sëriñ bi. fu ko wutee ku dul sëriñ bi. fu dul ci sëriñ bi perte nañu perte nañu waaw kon ñaar yooyu rek fi nekk nag. ñi fi nekk ñi fi nekk. nañ doyloo sëriñ bi nañ doyloo sëriñ bi. nekk ci seen nekk seen diine. nekk ci seen diine. seen kem kattan seen kem nekk ci seen taalibe nekk ci seen bëgg lu baax. nekk ci seen bëgg lu baax. seen kem seen kem kattan. di jëfandikoo makaarimul axlaaq di jëfandikoo nag makaarimul axlaaq jikko yu rafet yi ak yu baax yi waaw jikko yu baax yi jikko yu baax yi mi ngi ci nun jikko yu bon mi ngi ci nun jikko yu baax yaa ngi ci nun jikko yu bon yaa ngi ci nun ñu doon jéem a góorgóorlu di xeex ak xeex jikko yu bon ñuy jéem a góorgóorlu nag di xeex ak jikko yu bon yooyu di jéem a góorgóorlu di jëfandikoo jikko yu baax di jéem a góorgóorlu di jéem a jëfandikoo jikko yu baax yi noonu rek noonu rek moo moo moo moo moo nuy musal moo nuy musal moo nuy may jàmm moo nuy may jàmm mooy woyefal fitna ji mooy woyefal fitna ji. loolu buñ ci nekkee. loolu buñ ci nekkee. saadatu daara yi rek la ñuy andil. saadatu daara yi rek la ñuy andil. saadatu daara yi nag. saadatu daara yi muy tax ak tey ak ëllëg. la gën a yomb ëllëg la gën a yomb. ëllëg la gën a yomb. boo amee një yërmande suñu borom njëgalam rek foofu mu jeex tàgg. boobu foofu moom boo amee njëgalu suñu borom ak yërmandeem rek mu jeex. fii nag fii nag da ngay jëf da ngay jëf di jariñu di jariñu ba yëg ne yaa ngi jariñu ba yëg ne yaa ngi jariñu ba yëg ne yaa ngi yaa ngi gën a mucc ba yëg ne yaa ngi gën a mucc yaa ngi gën a texe bëgg yaa ba yëg ne yaa ngi gën a texe loolu suñu dund gii rek loolu ci suñu dund gii rek la nekk ku ci bëgg jàmm nag ku ci bëgg jàmm nag bëggal sa bopp jàmm bëggal sa bopp jàmm bëgg bëgg a noppalu bëgg a noppalu bëgg a texe bëgg a texe da ngay da ngay da ngay da ngay da da ngay da yoonu sëriñ bi. da ngay sóobu yoonu sëriñ bi. da ngay sóobu yoonu sëriñ bi. da ngay yoonu sëriñ bi. Hmm. ndax bi gisul dara. ndax sëriñ bi gisul dara. lu dul borom ak yonent bi mu ko tegtal bi mu ko tegtal rek. kon am nañ tawfeex ju de. kon de am nañ tawfeex ju rëy de. mën nañoo am xéwal gu rëy mën nañoo am xéwal gu rëy nag. fii ci dundug adduna gi fii ci dundug adduna gi. ak dundug alaaxira gi di ñëw. kon ñun ñi fi dëkk. kon ñun ñi fi dëkk. nu góorgóorlu bu baax. bu nu góor nan góorgóorlu lu baax. kem kattan kem kattan. alhamdulilah rabbil alamin suñu borom moom ginnaaw boo boo boo jógee. boo rek moom mu xas wuti la. ndax alhamdulilah rabbil bi nga xamee ne sunu borom moom. boo waaxoo jëm ci moom rek mu waaxu jëm si ci yow. loolu mooy mooy boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu la. boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu la. na jógi dëggu rek na jógi dëggu rek. na rek na dëggu rek. kon loolu mooy suñu warteef. kon loolu yi mooy suñu warteef. ku fi mën a ñëw itam. ku fi mën a ñëw itam ak fu mën a jógee. ba ñëw Touba sëñ Touba képp la fi indi. bu fi jéem a wut bu fi jéem a wut dara rey adduna. yemale ko sëñ looy wut rek yemale ko sëñ Tuubaa lu ko may pertement rek lu ko may pertement rek la leen ah, ñi fi nekk doyloo sëñ kon ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa loolu yi rek mooy jàmm ji waaw ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi dikk di wut si sëñ mm-hmm. waaw rek mooy mbir mi ñi fi nekk nañ doyloo sëñ Tuubaa ñun ñi fi nekk nañ doyloo sëñ Tuubaa pexe yeeg yooyu yëpp amul benn njëriñ amul benn ca gàcce rek lañu xalaat xaraab maanaam dem ba nga xam ne lépp day gent rek yàqu maa di taal góorgóorlu bu baax góorgóorlu lu baax kon alhamdulilah mën nanoo dellu kon alhamdulilah mën nanoo dellu si ci waajtaay bi ci waajtaayu bis bu mag bii di bëgg a ñëw ko nan fet ngeen ko nan teewlu bu baax nan teewlu bu baax lun lot lot lot ak lun lot lot lot teewlu bu baax jëm jëm jëm jëm jëm seen suñu lépp ci sëriñ bi nan teewlu bu baax jëme suñu lépp ci sëriñ bi fas yéene suñ suñ suñu yitte yëpp ñu yemale ko ci moom fas yitte yëpp ñu yemale ko ci moom jublu gépp ñu def ñu jublu mu suñu jublu muy suñu jublu gépp muy suñu jublu suñu mu mu jublu sëriñ bi suñu jublu gépp muy jublu sëriñ bi loolu dañ ko nan ko nan teewlu fii nan teewlu fii waajal ko waajal ko ba bis ba agsi kenn ku ne ci nun nag. kenn ku ne ci nun nag. feeg ba feeg ba. bépp bépp taalibe. bépp taalibe. ak képp ku bëgg Sëriñ Tuubaa. ak képp ku bëgg Sëriñ Tuubaa. Eh, na nga na nga na am pasteefu. na nga am pasteefu. jàng ab jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant bi. cant gi ñuy war a sant Sëriñ Tuubaa. gi ñuy war a sant Sëriñ Tuubaa. di ko ko santale. ak di ko ko santale. kenn ku ne. kenn ku ne. na jàng am pasteefu. na am pasteefu jàng ab kaamil. boo ko mënee boo ko mënee. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant ak cant léegi. ak cant léegi. ku ku ku ku yàlla dogal mënoo ko. ku yàlla dogal mënoo ko. am na ñu ko mën ca sawet. am na ñu ko man ca sawet. nga nga nga seral ku la ko jàngal. nga seral xol ku la jàngal. loolu yaakaar naa ñëpp loolu ñëpp ko mën ko def. loolu defe naa nu yaakaar naa ñun ñëpp mën nañ ko def. yomb na lool yomb na lool. te jëf ju rëy la. tey jëf ju rëy rëy la mën naa defar lépp. kon noonu rek la demee ñu góorgóorlu bu lu baax. alhamdulilah rabbil alamin la in shakartum la azidannakum fekk yéen ngi sant rek muy dolli. kon gannaaw bis bu mag bii di ñëw. bis bu mag bii di ñëw. benn bis bu ko kawee. benn bis bu ko kawee. te bisu cant rek la. ndax bis cant rek la. Ah, nan ko waajal bu a baax a baax a baax. lenn luñ a dolli ci cant gi nag. luñ mën a dolli ci cant gi nag. ci xeeti yu baax yëpp. ci xeeti yu baax yëpp. luñ ca mën rek luñ ca mën rek nañ ko def. noonu yi rek la demee. noo ngi sant ñëpp nag. nee na ñoo ngi sant ñëpp nag. Eh, jaam bi moom moom xamee ne jaamu boromam la. jaam moom bi xamee ne jaamu boromam la. ju toll ni bëgg Sëriñ Tuubaa am tawfeex ju toll ni bëgg Sëriñ Tuubaa loolu doy na lépp kon koy nu sant bu baax a baax di gën a góorgóorlu rek loolu rek a fi nekk jërë ngeen jëf noonu rek la demee lépp a ngi ci biir nan gën a yeesal sunu jaayante gën a dëgëral sunuy laxasaay gën a dëgëral sunuy laxasaay gën a sóobu bi gën ko jublu gën koo jublu suñ lépp na jëm suñ lépp suñ lépp na jëm foofu loolu ci tawfeex ju rëy rëy lay jógee di xew xewal gu rëy rëy rëy at googu àdduna ak àlaxira kon nan sant yàlla te góorgóorlu rek jërë ngeen jëf barakallah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bàyyi ko sëñ Bass kàddu gi. asalaamualeykum wa ci ndigalul sëriñ bi ñuy àggale tuuti ci kàddu yi rek ci ndigalam ndax boo xasee ba yëkkati kàddu passif muy waatu di waxaat ci ginnaawam kon ci ndigalam rek ak ci barkeem di. ni ko sëriñ bi waxee léegi rek mooy di fàttale ñëpp bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal mu war a dëppoog alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar juróom ci weeru septembre wi sëriñ bi ne ngi koy fàttali bokk jullit yëpp di ko fàttali bokk taalib bi yëpp di xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa loo xam ne moo waxoon ne na ko ci ñëpp sant la yàlla muy loo xam ne moo ko daan def sant santoon ko taalib yëpp wax ne képp koo xam ne mbégam sa bu Yuusuf agsee na ko ci sant la yàlla li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem kon loolu mooy li ci sëriñ bi santaane woon li ci des sëriñ bi wax na ko léegi mooy digal ne ñëpp ko képp koo xam ne taalibe nga wala ngay ko bëgg sëriñ bi nga jàngu kamil sant le sëriñ bi boroom sant sëriñ bi waajale ko bis bi loolu nag ni ko sëriñ bi waxee mën naa defar lépp bu ko tuddee ci wàllam ñëw rek kon nañ gëm ne suñ lépp mën na cee defaroo kon nag ñuy ñaan ñu àgg ca bis ba ak xam ne bis la boo xam ne bis bu ko ëpp ndax sëriñ bi dafa waxoon ne suñ borom ko da ko ci daa ay nattu ba bis bu mujj ba ba nga xam ne nattu yi jeex na suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na sak pay ci des bi fi saa su ak seetee nattu yi daa toll rek ni la xew li toll saa su ak kenn ku ci ne na xéewal gu ko suñu borom doon defar rek dana ko fula ba mu agsi sëriñ bi it waxoon ne eh, bis bi buñ demee ba ëllëg suñ borom mi nga xam ne moo bindoon adduna bind guddi bind bëccëg yi ci kattanam ndax nee na ay bis amu waaye bu ñu agsee ci bis ba màggalu Tuubaa daan xew ca adduna kenn ku ci ne da ngay xéewal gu dolli ko ci yow daana wax itam ne ñaar buñ dendee kii di ko màggal kii di ko ñàkk a waxtu nekk ca des di seen lu ko lu di tiime kon nag bis bi mooy suñu lépp mooy suñu defarug àdduna ak alaxira te sëriñ bi moo bindoon te dara gën te wir ay waxam wax ne sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafihan li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi muy li li doon a saw wustu kéem bii nga xam moom la ñu màgg tey du dara lu may ñaari yëf benn bi mooy daraja ji suñu borom buggoon mu am ko te mooy al abdul xadim ba ca sit mooy an akoona shafian li an akoona fi daw mi mooy xettali xeetu rasulullahi sallallahu gi nga xam ne wax na ne bu demutoon ci tukkeem ba ñëpp daañu tabbi sawra kon nañ xam ne bis mooy suñu lépp kon ñu ñaan ñu ak ja jàmm te suñu borom yàggal fi sëriñ bi dëgëral taxawaayam ba ni mu siggale lislaam siggale ko yoonu murit ba la Serigne Touba waxoon ne bokk na ci mandarga mandargam texe mooy benn xool bu baax du ko du ko delloo Serigne bi yàlla def na ko ci moom wa min shahaadatil xata xaysu qasat ay laa yurdahu fa adushir asad kon nag suñ yitte yëpp mooy ñaanal ko mu yàgg fi ba lim yéenee liggéey Serigne Touba ci lépp bëgg ñëpp defaro li muy wax ne li ma yéene sama bopp laa yéene yëpp fenn ci biir kàddu yi mooy bu soñoon ñëpp defaru bu soñoon ñëpp euh, dëddu àdduna sànni ko te dëgg man Serigne Touba ndax xam na loolu mooy suñu njëriñu tey mooy suñ njëriñu ëllëg kon nag la waxoon rek ne ne xool leen ci man ñun ñëpp man nañ maase xool ci aw doxinam mënuñu mënuñoo teg fiñ teg suñ tànk fi ñu ko teg nag waaye nañ ko jéem a roy buñ ko jéemee roy du ñu àgg fa mu jëmoon waaye yàlla mën nañu ci xettile ci loolu ndax moom kat yàlla defal na ko tawféex ndax ni ko waxale woon boppam ba mu jugee rek la dëddu àdduna sànni lépp dëgg ma sëriñ Touba loolu nag ba nëgëni wàccut kon la Cheikh Ibrahima Fall daa wax sëriñ Touba rek bu ko ma Massane wàccee mu ne ko Mbàkke de du ma wàcc ndax yaa yu njëkk a xëy ci toolu Rasulullahi sallallahu alayhi ma nëgëni wàcce ko kon na ko xool ci moom fi mu toll. te waxtu nekk boo ko gisee mu gën laa farlu ëpp la yitte ëpp la taxawaay loolu ñu topp ci ginnaaw ñëpp war nañ cee laxasaayu roy ci moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود كدري